ma ngi leen di yóbbante nuyoo tam ci suñu théâtre kat bi <laughs> sëñ Aboubacar Samb <laughs> ma ngi leen di yóbbante alaaji ndal dama damaa jékki rek ñu yónnee mu benn message benn vidéo am xale bu jigéen bu naan Aboubacar ki fi gën ma ne ki fi gën la ngi kenn xamul la moom itam muy suñu rak di suñu soppe yal na yàlla sàmm ko yàlla mottali xarakaat yeeg yëngatu yi yépp ci barkent bi imam li ma la waxoon def naa ko mu des li nga ma waxoon waaw man fi mu nii maa ngi yow pare nañ man sama bos jeex na sa wàll nag moo ci des imam am na ku yaru koo ma booleel ci suba Aysatu maa ngi koy nuyu baax moom tam di ko ziar kii bëgg na turam salaamaaleykum wallaay salaamaaleykum rek kon kontaan naa taas yu barki dem nii lay xam naa ko sàmm jërëjëf allah maa ngi koy tudd sànq muy agsi moom tam muy suñu rakk di suñu soppee Aboubacar mii lu ne laa koy wax damay jékki jékk fekk ko ci jataay ñu baal ma ma ne ko abu génne li nekk sa poos jox ma du ci teg baat lool maa ngi leen koy séedeel maa ngi lay ñaanal fi nga bëgg a yegg yëpp yàlla na la fa ngi lay ndokkeel ci talent yu bari macha allah gis naa waa ji sonal la lool kii sa waaja waaju dër ja ki ci télé bi sonal na la lol nee naa ko nag na la bàyyi waaw ndax yow li ñu mënul ñun ko nga yaa ñu ci bi di ñu bëreel di daan ñuy ree na yàgg te sax waaw ay ñaan ngeen tàccul ma Aboubacar Samb ngeen tàcc ko bu baax kon nak شيخ الحاج El Hadj Abdou شفيعنا خذ بيدي أخذ العنان سيدي إليك فضلك زدي للعبد يا حسن خلقي حسن ختامي وارزقي وحققا تعلقي بذين الشيخ الأكرم شيخ الحاج عبد الله السماني ربي صدور واشرحي لنا القلوب وافتحي شؤوننا واصلي ربي بنون, ربي بنون والقلم ومن كل الوجود ممتثل الأوامر قد كرم والجد من كبير عنك لا إله إلا ku fi tasu yàlla nga gàmm mutasirul awaami na ñëpp aw lawul judul min kabiril an kabir oh, yeneen tibi man lahoo kullul wujud mumtasilul awaami waaw waaw kabirin عنك لا إله إلا Oh, Muhammadul oh, Waman Luhur. من كبير عنك لا ومن له كل الوجود أنا نبقى سيدنا محمد في لون من له الجد من كبير ممتثل الأوامر قد كرم له الجند وهو من كبير عنك لا إله إلا ومن له كل يا رسول الله ممتثل الأوامر قد كرم له الجند من كبير sama jàng am na ndeysaan ومن له كل الوجود ذل أن ليس قد كرمت له من كبير عنك لا إله إلا ومن له كل الوجود أنا نبغي سيدنا محمد الفيلم أن ليس الرحمن له الجود واو ku fi gën a bëgg Sëriñ Babacar sa loxo wa man lawoo kullu jud mumtasilun awa am na lay daan كرمان وجود من كبير عن كبير أيوة أيوة من له كل الوجود مني غازل حسين متصل أوامر واو وجود كبير أمنا ليس ومن له ممتثل أوامر أمنا ليس كرما من كبير عنك لا إله لا ومن له كل مغنى ممتثل لفرم الرجل ومباح ma jàng dem ma jàng dem ma jàng te dem wa man lahu منطق الأوامر والرمان له الجد من كبير عن كبير الرب عند وإلى بشرى burdu bi amul ku bëgg sayyiduna muhammad bu fekkee am na fi maa ngi leen di yalwaan kenn ku ci nekk nga fittasu di wax min awalin li aaxiri ba ba ñu koy dégg ca ma mën madinatul munawara ku ci gën a kawele baat yal na nga gën a kawele château ca aljana ku ci gën a fittasu lu mu gën a foor yal na nga koy klaxon ni ca buntu aljana acca ba wën na نبي الأنبياء من أولين يلا نغيك جيد الأسفياء وسيد الأكابر وصل يا رب العباد على النبي القاسم وآله ذوي الرشاد وصحبه I'm Vasali أو قدوم من المال أو قدور الظلام ما لا غرق أو قدور الخور أو بدور الظل جلنا نيوغا مزايمان لا أبرحم كفي تصي على بوي دبي أو بدور سميت كموي دلك مبدي Mulbadi Mulbadi مدايا باي ما توك رك باي مني مو غنا باخ من مزايا ما كو من دفي داي غنا نيه من مزايا باي باي رك نيسان رك هذا عبيدك عند الباب كون كون كون كون شهب بالنمر إلا أنت من حال ويا عبيدك عند الباب kong kong kong kong Cheikh Oumy na Mbaye المسايا لبنين أو أشبه الوبل في أواك منغمي رن لا أسبع الناس غرق فيه في جدوى شيخ تيجان شريفنا النبي في جدوى شيخ أمام borom salaala yow yaay maktuum borom tilim saa nak niki naas ak bul maktuum yaa bu salaala yow yaay maktuum jaaraam sayyidil aali maktuum fi jadwa ay maam Khalifa def leen ni def leen ni خليفة خليفة خليفة خليفة مام خليفة باكر زيد النانم سيدي أبو بيدان ويسمى ويلا قطب القافقين دان بين المشرق دان ويسمى ويلا والمغرب بين سيدان باكر زيد النانم Bye bye. 天地。 حجي سلمى براقم أمن يد الله أظلال أتى الصغير حبيب كريم ام خليفه كرسي جلنا خليفه يا ويا ابراهيم بابا كرسي جلنا كرسي جلنا سجل بابا كرسي جلنا بابا كرسي جلنا خليفه يا ويا ابراهيم بابا كرسي جلنا بكر سجلنا في مسبك سين بكر سجلنا بكر سجلنا Baba, taxaw Babacar Sy jël na borom pavillon doore be mooy xalifa Babacar Sy maa ngi laaj ana ñi fi bëgg sëriñ Babacar Si a bëgg sëriñ Babacar Si damay laaj ndax burdu bi am na ko fi tudd sëriñ Babacar Si maa ngi laaj ndax burdu bi am na ko fi bëgg am doom bu góor ko sëriñ Babacar bëgg sëriñ Si jugal taxaw nga dox ndànk ñëw ba nii taxaw rek ni ma man la nga delluwaat ma way maa ngi xalifa borom pavillon doore ngay maam xalifa Babacar Si jël naa ndam Babacar Gueye xalifa Serigne Babacar Sy na ñépp ni nii nu borom bone kaare bi borom sàkkare yàlla bi borom listixaama borom manto bi borom médaille borom ayka bi borom ndàkk jëkk li ci te ni jonn te xorom mamuraan gi gaynde njaloor gi te xorom mamuraan gi Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy Malick nee na ko fa minal كامل لكماله في مدح شيخ كامل شيخ تبحر من بحور مواهب لدنية ومعارف وفضائل بحر الشريعة والحقيقة فلقيا من لا في قار بحر هائل أنا نفق كنا سرين بابا كرسي تيجان وعلى التراب ترب برجلك قائلا ما شئت قد قصصت خيرا أوان وإنني قد كنت ko yi <clears throat> ko Sidi mbay ak imam jiti mi, liko tek ci loxo Sidi mbay sama loxo la ja motax ñu bari yeen say nga deg ay rumeur ci kat waykat way kat yi te fekk ñun ay frère lañ gàmm gii maa ko teg ci loxo Sidi duma ko fàtte at mi ñu ko mujjee jàpp may fekk Allemagne ñu ngi ko def la 15 mai kon xam nga fàtte mu ko 2015 xaw ma 2014 imaam jiite ñëw ni ma jàpp nañ ko ma ni ko damay tukki waaye koo xalaat ci Tiwaawan woo wax ma ñu woo ko mu gàmm mu ni ma Sidi Mbaye keroog maa woo Sidi jël numéro imam jité jox ko sidi jël numéro sidi jox jox imam jité waaye nak imam sagal ma ci ndax at mu fi Sidi Ahmed ñëwé teranga yi ngeen koy defal daf may fekk fama ma da ñun duñu réro ñun ñi Tiwaawan duñu réro suma ma lay xaalis nga ngamé wër gisoma ma boo Sidi Mbaye poñe ko dalay fay non lañuy andé su ma ko su la su la yoree lee xaalis nga koy wër boo ko gisul boo ma gisee fay poñe ma ma fay la lu ko nit di jox su su tegee ci sama loxo jot na ci lu ma nit di jox jaar ci moom mooy moom mën nga ko jox ñu noonu lañu yàlla boole. daraa nga yoo ko defal rek bu gàmm gàbb ba ca suba ga dana ma jot loolu nag ñu ci la ciy sant ba ci tafsir gay tabaarakallaahu lépp di di rafet. keroog gàmm gi mu yor nii tombeeg génn àddina sëñ Mansour borom daara ji enveloppe tafsir gay maa dajeeg moom jam ñaajo jox ko ndax ay ndax ay jooy saan loolu yépp nag am na yoo xam ni bu rafetul woon kenn du toog ci jataay di ko nettali am na ay mbir yoo xam ni bu ne bu rafetee rek net bu nettali amee rek rafetaay ba moo tax yal yàlla barkeel maa ngi gërëmaat ñépp di jéggalu itam li may wax ba pare di dem ku ne xam na ni message naa ngañ bàyyi ñaari yoon ni ko dimbale ma rek bu ah waaw kay ma ni ko dimbale ma rek ma guddee ndax yenn saa yi nit nak bu la soppee lu mu wax la ko da ngay sacrifié wu benn jour te ay ñaari at xaw ma ñett top topp ma rek yenn saa yi su ma dajeeg moom mu fas kanam gi ma ko sama yoon nekku ci <laughs> yenn saa yi ma ak moom nuyu ko duma fay waaye lépp rek ma xam ni cofeel la waaye tey ñëw naa maa ngi ñaan yàlla nag at mu jot yàlla di ma may jot ak kàttan gu may man di ñëwee di ko seq ak yéen su ma ñëwul rek yàlla xam na ni nekkal leen fenn ngeen nekkal ñu fii rek moo war waaw te bu ñu ñëwul it dina dox ndax Demba mbay mii fu mu nekk ñun ñëpp ñoo fa nekk man nag li may wax mooy li ma gëm man sama waxtaanu oto mooy sama waxu kër mooy wax li may wax ci mbedd man nekk ma ci man awma ay li ma gëm rek laay wax waaw li ñuy jëlee man baa keneen ak keneen bu dem ba ñëwee loolu lay wax xëy na dafa baax rek xormaan ñu joxe cër tax waaye tabaarakallaahu lépp ci loxoom lay nekk kon nag ku ma joxoon sax imam imam kay ñaanal ma ma dem bokk su ma demee ci Pape Moulay mu yeesal ma rek